président Bassirou Diomaye Diakhar Faye xam nañu ne jamono jii mu ngi doxal agenda bu ama amam solo par rapport ak l'international mu ngi gisante ak dégganteeg ay kilifa yu nekk ci àdduna warngal képp ngir gën a mën a ñoŋal Sénégal lépp loo xam ni lu baax la mu bëgg ko fee defa ñun ñëpp gis nañ discours bi nga xam ni moom la teniroona ca assemblée générale bu ONU xaw ca tribune ba wax fa loo xam ni àdduna warngal képp ñëpp ko bàyyi xel kilifa yi apprécier bu baax a baax ndax discours bu responsable waaye itam ànd ak audace bi nga xam ni moom la fa tenir yoo xam ne gëjoon nañ ko faa gis ah, tukkee ci président africain moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye moomule mi ngi waxtaan ak ñëpp bàyyiwul kenn ba ci ki nga xam ni àdduna wërngal képp jamono ji moom la ñuy joxoña ah. ci bëree bëri jàpp nañ ne sax mooy le président le plus puissant mu di Vladimir Poutine mu Russie moom président Diomaye yi na am na benn waxtaan bu am solo boo xam ne jot na koo séq ak moom via téléphone waxtaan boo xam ne ñëw lañ ci ci ponk yu bëree bëri comme ni ko président fësalee ci page Facebook am ay page officielle bu présidence de la république daal di koy publier. président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na j'ai eu ce matin un entretien très riche et très cordial avec le président Vladimir Poutine de la fédération de Russie. moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na tey jile ci suba. am na benn waxtaan bu am solo lool arion itam boo xam ne séq na ko ak Vladimir Poutine nekk président bu Russie lool waral mu teg ci ne nous avons fait un tour d'horizon de la longue et entre nos deux pays waxtaan nañ ci lu bëree bëri ci li nga xam ne su ñaari réew yi seq nañu ko muy jokkalante bu yàgg lool ak xarito bu dul dañ dox ci suñu diggante loolu tax président ni nous sommes convenus d'œuvrer ensemble pour le renforcement du partenariat bilatéral de la paix et de la stabilité au Sahel y compris la préservation de l'espace CEDEAO et de joindre nos forces à ceux de la communauté internationale pour faire face au défi mondiaux lu am solo waxtaan na ak Vladimir Poutine bu baax ngir ñoom ñaar xool naka la ñuy gën a ñoŋalee seen doxalina seen jëflante ak seen nekkina xool itam naka la ñuy def ngir jàmm ak salaam ak dal la mën koo nemmeeku ci zone Sahel la espace CEDEAO itam la fa nekk ñu téye ko boole suñuy doolee ngir jàppale communauté internationale maanaam bootaayu xeet yi nekk ci àdduna bi yëpp ngir ñu mën a jàkkaarloo ak jafe-jafe yi àdduna bi nga xam ne moo nekk ci suñu kanam lii mooy discussion bi nga xam ni moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na am na ko moom ak Vladimir Poutine muy nag lu ama am solo loo xam ne day wane encore une fois dayo bi nga xam ne moom président am na ko en tant que jeune waaye itam respect bi nga xam ne jox nañ ko réewum Sénégal jox ko ko itam ndax fi nga xam ne fa la ñu jaar ba mu yegg ci fii nekkul lu yomb àdduna wërngal képp ñoo ñu doon setaan doon xoola Sénégal fan la nar a mujjee révolution bi fi am ànd ak rupture tegu ci jub jubal ak jubbanti képp koo xam ne rek da di président bëgg lu baax faw rek nga jox ko ak président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngir loolee ñu mën koo jëmmal am ci itam ay résultats yu satisfaisant kon gars yi lii moo di mbir mi gis nañ ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngi ci liggéey bu am solo kon nañu ko jàppale moom ak son PM Ousmane Sonko ngir lépp loo xam ne bëgg nañ ko ci réewum Sénégal ñu mën koo réaliser gis nañu ne à l'international ku ñu respecté la ku ñu jox cër la ku ñuy bàyyi xel bu baax a baax gannaaw ba nga xamee ne def na discours boobee te turbine bu Nations Unies muy mbir mu am solo boo xam ni war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax moom président Bassirou Diomaye Diakhar fay am na taxawaay bi am na charisme bi am na itam compétence yi ci war a loolee moo waraloon président Ousmane Sonko bi nga xamee ne tànneef jot na mu joxoñoon ko ne sénégalais yi kii laa tànn kii laa woolu doy na ma moo waral ñu fal ko à plus de cinquante quatre pour cent fal googu ñu ko fal nag nekkul lu nul ndax mi ngi ciy def liggéey bu am solo te nag du yàgg dara résultat yi ñëpp dinañ ko sentir ndax coopération yi nga xam ne ñi ngi koy gis moom président mu koy yootu bés buñ ci jotee boole k gën a ñoŋal lu suñu souveraineté réew mi dina gën a jëm kanama ñun ñëpp gis nañ seen taux d'importation bi ni mu wàccee mu lay wan ne moom suñu bopp président mi ngi ciy dox bu baax a baax ànd ceeg le PM Ousmane Sonko ak li ñu présenté muy le référentiel Sénégal vision 2050 muy loo xam ne ñun askan wi yëpp war nañ cee taxaw jàpp ci ngir mën cee am ndam lu rëy AGT News